nataal fanweer ak juróom benn yaramu nit am na wàll yu bare bët nopp ak gémmiñ wàll bu nekk ci yaram bi am na liggéeyam bët pour gis la nopp pour dégg gémmiñ pour lekk ak wax yàlla teg na cër bu nekk fi mu war a nekk comme nu mu ko bëggee wàll yépp ci yaram bi am na solo wàll bu nekk soxla na ay moroomam ndax mu mën a doon yaram bu mat benn ci wàllu yaram bi bu fekkee am na gaañu gaañu walla mu tawet yaram bi wépp moo koy yëg yàlla tamit ne noonu la ci yaramu kirist gaay kirist bu nekk am na liggéey bi ko war ci biir yaramu kirist gaay kirist bu nekk war na defe liggéeyam nu mu gën a jube to rafet ci biir askanu kirist gaay kirist yépp te bokk ci benn yaramam war nañ joxante cër te di dimbalante ci lépp liggéeyandoo te ku nekk xam cër bi mu ci am fu mu mun doon ba nga xam ne yaramu Christ bi du am mettit gaay Christ yi dañoo war a am yërmande seen biir bu fekkee kenn ci gaay Christ yi mu ngeeg métit wala tiis mbokkam yu góor yi ak yu jigéen yépp dañ ko ci war a jàppale dimbale ko ba génnee ko ci métit yooyu ci noonu yaramu Christ bi dina nekk yaram wu sell te wër te di dox ci yoon yaramu Christ bi ñu mën a woowee yaramu gaay Christ yépp dafa nekk ñépp ñu bokk ci jàngu bi te di déggal Christ